nga gis sa ndox bu neex. Mhm. wala sa jus. Mhm. nga waroon koo naan yàlla mën na la carrément. Euh, bul ko jël. Mhm. ci moment boobu. nga xam ne kon carrément li ñu naan ittaqullah xaysuma kuntu mooy ragal yàlla. ak foo munti nekk. parce que mën nga wéet nga làkkatu nit ñi bañ laa gis. yàlla moo lay gis. moo lay woon ni carrément weeru koor yàlla dalay woon dalay jàngal tawxiid. tawxiid jàngala tamit taqwa ragal yàlla. parce que pourquoi yow boo ko defee. Mhm. ëllëg yow yaa koy jëriñu. Mhm. mais bu fekkee da ngay làkkatu di def fi séeréer wala di fi ñuy sant ba. Mhm. di làkkatu di def ay. jëm nga séeréer de wala jëm nga séeréer <laughs> waaw parce que samay kàllañ moo tax. dëgg la xam nga kon da lay wane carrément kon tey yow naxoo naxoo kenn sa bopp nga na xam nga. Hmm. comme que lii nekk na loo xamante amul tricher daal. amul tricher amul tricher hmm. te dara loo xamante ni imaginer euh, onze mois yëpp. yaa ngi hmm. lekk yaa ngi naan yaa ngi def loo neex. mais benn mois bi ñëw mu doon loo xamante ni dafa war a raxas say cër. raxas sa xol raxas sa bët. kon da nga ci war a parce que dara loo xam benn yoon ci at bi la. est que que déwén. mu dina la fekk. ñenn ñoo ko fekk woon daaw. te fekkuñ ko ren. feebar naa rek non ñenn ñi parfois pour ñu ragal yàlla dëgg dañ naan foog ñu feebar. boo xoolee ba ci jàkk yu bëri xam nga yàlla ci def yërmande. Mhm. jàkk yi boo xoolee jàkk yu bëri. Mhm. dañu fees dell. Mhm. conférence day bëri. ak gendarmerie mais loolu dafa war a continuer. Mhm. parce que ñu loolu da doon loo xamante ni day dem day raxas xol. Mhm. parce que yàlla dinañ ci alquran wa zakkir fa inna dikra tanfa'u mu'minin dañoo war di fàttali surtout ñi nga xamante ne am xam-xam. Mhm. bu ñu basé rek ci par vendredi rek lañu ñu war def ay émission ci ay rajo. bu ñu basé rek ci weer koor la war def ay émission ci ay rajo. boo xoolee façon ragal yàlla yi dafa bëri. yi ko gars yi di dundee. boo xoolee ñenn ñ bu fekkee dafa am seen benn xarit bu dee. semaine boobu yëpp wala un mois boobu dañ koor ba koor nañu julli mhm. mhm. mhm. ñenn ñi foog ñu nekk ci ay problème ñu soog a ñenn ñi foog ñu nekk ci ay yenn situation wala gis kaa bu leen jaaxal ñu soog a julli yàlla nag moo gën a xam jaam yàlla bari na yërmande trop mais jaam bi yow danga war a pare pour tout mooy dee fu mu la mënta fekk nga xam ne carrément tey jii da nga assuré sa bopp carrément yow yàlla may na euh, bu muy rocc sa ruux fekk la ci anam bu baax moo tax dafa jara def attention daal ki tension moom fii. Mhm. cardiaque moom fii. Mhm. lépp comme euh, déjà démb gis na jour boobu gaañu. Mhm. comme nu mu gaañee noonu ku ko woon dina faatu. du ko gëm ci moment boobu. mais gis nga sportif la. kon tey jii dañ naan ñii di sport ñoo gën a wér. mais feebar yàlla ak ndogal yàlla ak nit sa app bu jeexee. nu mu lay bettee. moo tax toujours nit ki yow rek war a pare pour tout mooy dee bu lay fekk mu fekk la ci anam bu baax. nit nag di nga amul ku dul juum ci kaw àdduna mhm. mais boo demee ba benn instant war nga mën a toog xoolaat sa bopp nga xam ne carrément ci li nga nekk nii baaxul mhm. nga nit yaay tàgg sa bopp ci lépp yaay tàggat sa bopp ci lépp parce mhm. que moment bi nga xamante ni yow dee fekk na la fi bu fekkoon ñaawteef nga nga daan def boo yeewoo. Mhm. ci loolu ngay mel ni kuy continuer. Mhm. bu fekkoon ci lu rafet lu neex yàlla nga nekkee tamit boo yeewoo tamit daf ngeen ci loolu ngay nekk. Mhm. kon nit ki war nga mën a pare dee. balaa dee di la fekk ci lu ñaaw incha Cheikh Djibril Diallo comme saa su ne bu ñu ko déggee dañuy am mbégte bu baax eh, ndax ni ñuy développé lenn nag moo may jaaxal ci Cheikh Djibril saa su ne moom day dem ba sax day fàttali ne dafay faj day dem ba fàttali day joxe ay garab day dem ba fàttali ne dafay jaay mais bu toogee li ci ëpp li muy def ay conseil lay def Cheikh Djibril Diallo dama gis ni sa waxtaan yu bëri ay conseil la doon yi doo woote doon yi ko nit ñi di defee kaay ma faj la mën naa lii mën naa lii damay gis ni lépp da ko teg suñu borom nu demee noonu slogan boobu. waaw Moussa euh, nit ku nekk missionnaire nga ci kaw suuf. Mhm. ci loo mënta def am ci war a profité mhm. nga jaam ci yàlla. Mhm. mooy métier bi li ñuy liggéey. dañ ci kon nit lu jiit avant tout. mooy nga jéem a defar xol yi ak jikko yi. nga jéem a defar xol yi ak jikko yi. su boobaa nit ki feebar bu mënta am ku mu faju day yomb allah parce que yàlla danaa wa zakkir euh, fadkuruni azkurkum washkuru takfurun mhm. nit ki boo bu fekkee da nga nekk mhm. koo xamante ni chaque instant yaa ngi fàttaliku sa borom mhm. chaque instant nekkal sa borom yow jàngoro boo mënta am wala problème boo mënta am yàlla da taxaw mais bu fekkee yow da nga nekk ci ñaawteef wala nekk ci naka su noonu su boobaa seytaan da lay dominer té di nga dund lu metti lo xamanteni di nga tok nga ne waaw ana yermane yalla bu ñuy wax. Mhm. fekk yermane yalla mu existe. Mhm. parce que ñen ñi da ngay gis té di euh, jii ñu luy seen borom. moy mhm. dañu naan ñoy ñaan. mais gisuñu benn changement. fekk amuñ dégg-dégg parce que yalla toujours buy wax danaa moom borom xel lay wax. parce que pourquoi Moussa nit dina ñaan alal. fekk alal joj mu ñaan yalla amana bu euh, bu ko jotante ji gënul ci mom nit di nga ñaan yalla guddu fan. amaan na yow gudd fan boobu nga doon ñaan yàlla gënul ci yow. ci yow mais ci biir gudd fan boobu nga ñaan yàlla bu fekkoon yow vingt ans nga bëggoon wala trente ans wala quarante ans wala cinquante ans. Mhm. yàlla day def bu fekkee un an ngay ngay faatu. Mhm. li nga doon jaamu lu mat vingt ans yàlla day profité ci biir un yi nga jaamu ci lu ëpp loolu. Mhm. comprendre parce que boo xoolee bàkkaat boo defee benn njëkk njëkk tiyaab boo defee dix. te affaire bi noonu lay yokkoo bi ba yàlla la lu bëri. mu ay xasanaar ay njëriñ yu bëri waxtaan bi leer na ndax kàddu yi aussi leeral na ko ba mu leer nañu Cheikh Djibril Diallo comme bala koy fàttali saa ne numéro centre médical Afia 77 187 57 57 boo ko wooyee mi ngi yokk apis saa yoo ko woowee nee naa doo jot kenn moom ngay directement soo ko dutulee am na ci lu mu nekk kon Cheikh Djibril Diallo ñi nga xam ne ñu ngi lay seetaan saa su ne balaa ngay tëj émission bi lan nga lay war a mën a baaxee. lu ma leen ma baaxee mooy niñ profitoo ci weer Ramadan bi nekk na weer boo xamante ni weer bu am njëriñ la weer bu am solo la antibiotique la antibiotique mooy produit bi nga xamante ni bépp jàngor bu mu fekk sa biir yaram ñu laa faj Moussa dafa am benn femme boo xamante ni mhm. dañoo toog un jour ñuy waxtaan mu ne euh, moom dafa daa sant yàlla daa gën a sant yàlla ci weeru koor mu ne lu tax mhm. mu dafa amoon début cancer mhm. gars yi tiital ko ba ñu naan ko carrément lii pour mu wér day compliqué. Mm-hmm. yàlla defal ko tawfeex am benn nit ku baax bu mu gis kooku mu ne ko del wóor. mu commencé di wóor mooy comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leen digle chaque lundi ak chaque jeudi. Mm-hmm. mu toppalante lu mat un an. Mm-hmm. gisu mu delluwaat hôpital gisatuñ benn feebar ñu ne ko yow nan ko fajoo. mu ne carrément man de benn góor bu mu ko expliqué dama tiitoon. ma dem pour mu ñaanal. mu digal ma naay woo ci laay gis. comme war na ne carrément nit kii yàlla lu muy naan innama na amalu bin-niyyat mhm. parce que yàlla toujours moom yéene lay xool. Mhm. te yàlla moo ñu gën a jege suñu bi mu xool. Mhm. kon bu ñuy woor. ngallaawaay bu ñuy julli. ngallaawaay bu ñuy ñaan. dañuy jiital yéene ba pare. te aussi ñu bàyyi soxal tamit. yéene di jàmm. parce que weer ko dafa neex koo gis moom moo euh, sa moroom di ko ndokkale. di defante ay teranga. loolu dafa doon loo xamante dafa war a wéy. parce que yàlla loolu la bëgg. te loolu tamit mooy avancé loo réew. Mhm. loolu tamit mooy dëgëral tamit dëkkandoo incha allah. incha allah di ñaan yàlla defal ñu tawféex. lépp mhm. problème bu nit mënut am ak bu mënut doon. Mhm. di ñaan yàlla saafara ko. yàlla defal suñu réew bi jàmm. defal ko réew mu wala jullit incha allah. di ñaan yàlla seen bërëb bi Sénégal TV yàlla na yàlla yóbbu ci kanam kanam incha allah. barke leen suturaal leen incha allah. musal leen incha allah. amiin asalaamaaleykum wa rahmatullah. amiin yaa rabbi ndeysaan man suy wax sama yaram dafay daw. ndax dem naa ba mu jiggu dama yakam ci def ak mom émission ndax yariñ bi ak teyin bi ak teggin bi nim koy tegee waaye nag ba centre médical Al Afia mom mo len do may émission bi numéro téléphone bi 77 187 57 57 désormais à partir d'aujourd'hui ki nga xamné moy centre médical Afia lundi xaar len ko ci Sénégal TV jeudi xaar len ko ci Sénégal TV dimanche xaar len ko ci Sénégal TV ça veut dire que mom dina jall 3 fois ci semaine bi ci Sénégal TV képp koo xam ne da nga soxla centre médical waa centre médical al afia di Cheikh Djibril Diallo lépp loo xam ne da ko bëgg xam lépp loo xam ne da ko bëgg soxla incha allahu rabbi boo duggee biir Sénégal TV di ko fa fekk te di fa fekk li nga xam ne aussi moom mooy numéro te saa su ne boo ko soxlaa moom di ko oowee amul guddi amul bëccëg amul samedi amul dimanche il travaille 24 heures sur 24 centre médical al afia na yàlla def jàmm du ñun ñoom ñoom ñëpp laay lim ndax su ma limee damay juum wax dëgg yàlla am naa mbégte bu baax liggéey ak sama équipe kon bokk internet lu Sénégal TV seen xarit Moussa moo fi jaaroon di leen bëggee asalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf.